première chose la deuxième chose dafa am ñaari décret dafa am le décret fixant la date de l'élection présidentielle te boobu noonu ñu ngi koy jël sur la base de l'article 31 soo fixé la date de l'élection présidentielle ba pare si ngay jëlaat maintenant le décret maintenant portant convocation du corps électoral maanaam ñu war a voté bés bi ñu war a voté décret bu leen may ñu jug dem moom la dindi première chose donc élection bi taxawagul foofu li tax ma wax ko mooy décret moo ñëw fii acte d' dafa nekk ci kaw muy constitution beneen bi ci topp mooy dañuy da koo abrogé abrogation effet ultérieur lay am maanaam la ñu defoon ba tey bu dee abrogation bi tey la ko def loolu c' est beneen bi ci topp mooy président de la république tey bii nii dafa am formalité yoo xam ne dañ ko tënk parce que fii dafa am une compétence libre amul pouvoir discrétionnaire su jëlee matuwaayam mu ne abrogé na décret bi automatiquement dafa war a jëlaat benn décret beneen décret la cour. convoquer le corps électoral parce que constitution bi mu fixé la durée du mandat moo fixé Macky le président Macky Sall su ko nekkoon mun na décaler élection bi entre mois de février. ak mars ak mars mais mënu la génn foofu soo xoolee le décret fixant la date de l' élection présidentielle da koy wax day wax lan moom tax ñu jël date bi jàpp ñu date bi mais ci fourchette bi ñu nekk toujours da koy respecté première chose. la deuxième chose mooy li ma wax sànq dafa am abrogation am annulation am retrait ce sont trois modes de sortie d'un acte administratif de l'ordonnancement juridique l'annulation est le fait du juge le dé le, le retrait et l'abrogation sont le fait de l'autorité administrative ici en l'occurrence Macky Sall le retrait a des effets ultérieurs n'est-ce pas alors que l'abrogation a des effets pardonnez le, le retrait a des effets antérieurs alors que l'abrogation a des effets ultérieurs ce qu'il trouve mooy lenn beneen bi si topp rapport entre assemblée nationale conseil constitutionnel président de la République ak élection assemblée nationale mënul dara ci élection bi conseil constitutionnel benn cër bi ko dese ci élection bi xam nga ban la mooy mu proclamer les résultats parce que lépp lu am ci processus bi muy nga xam ni les temps d'antenne et autres lépp cour d'appel moo koy def ñi war a saytu sax élection bi jóge ci juge yi cour d'appel mooy dexe ay délégué am Sénégal noonu lañ ko defee bu dee France na délégué yi ci conseil constitutionnel la ñuy jóge élection présidentielle bi ma wax la beneen bi si topp tey jii nii président de la république amul prise pour mun a jël ne moom munu la convoquer le corps électoral xam nga la moo tax suba suba candidat bu mu neex nga dem cour suprême nga def référé ni ko dama bëgg nga jël référé mesure utile article 87 de la la Cour suprême ne ko enjoindra le président de la République mu jël le décret convoquant nest mooy Macky ci boppam le président bis bu dàqee élection bi mooy le 2 avril 2024 on se retrouvera en situation de vacance du pouvoir du pouvoir et quand il y a vacance mooy président mënatul la gérer le pouvoir et trois types de vacances la constitution prévoit mooy président faatu mooy président démissionné wala mooy président n'est-ce pas mu empêché yooyu bu amul mooy kenn mënut a laal mbir yi beneen bi ci topp nag mooy lii diiru mandat bi li ma wax président Macky Sall ci boppam depuis 2016 moo ko caabi moo tax mënut a laal moom loolu on le met à son crédit Allemagne ba mu fa xewee dañ ni lu ñuy def en droit constitutionnel ñu ne nañu wër clause d'éternité éternité intangibilité fixité mënuñ ko dugal foo xam ni dañu jël caabi ja sànni ko géej loolu la ñu def pour la durée du mandat mooy kenn mënu koo laal mën a koo def par référendum mënta nekk soo bëggoon jël tey nga ni damay soppi constitution soppi dem laaj askan bi mënul nekk xam parce que clause d'éternité la mooy maanaam tant que constitution bu Sénégal mi ngi fi kenn mënu laal la durée du mandat xam nga soo ko bëggee dindi nooy def constitution bu bees lay indi. mais loolu laay wax. waaw loolu. pour euh, beneen constitution la très bien loolu mooy un référendum constituant pour une nouvelle constitution tabula rasa mais soo bëggee def révision de la constitution maanaam li PDS bëgg a def mënta nekk parce que dafa am ay incidences la durée du mandat ak la fixité de l' élection présidentielle notamment de l' échéance xam nga ni dañuy jaawale la durée du mandat du président de la République ak l' échéance du mandat de l' échéance du mandat ce n' pas la même chose li la date de l' élection présidentielle ak ñu convoquer le corps électoral mooy fourchette yooyu mënuñu fa génn beneen bi si topp nag mooy le président de la République a juré sur l' article de défendre et de respecter la constitution si l' assemblée nationale dugal proposition de loi député yi am nañ ci droit moom ak député yi ko may su boobaa noonu dañ ko koy transmettre pour avis président de la république dafa waroon wax député yi man mi nga xam ne maa bi c'est le garant de l'indépendance de la justice ni leen conseil constitutionnel rek mu mun a saytu élection bi il est aussi le gardien de la constitution il a juré sur l'article 37 de la constitution de défendre scrupuleusement les dispositions de la constitution du Sénégal su ko député yi bëggee salfaañee su ko keneen bëggee salfaañee et moom même dañu ko koy wax ni ko mënta ne li assemblée nationale bëgg a def mënta ne président de la république li mu bëgg def ni day ajandi élection bi mënta nekk beneen bi ci topp mooy le processus juridiquement li ça ne l'affecte pas ça se ça pour ça se oui le président a une compétence liée il est tenu de reprendre n'est-ce pas un nouveau décret portant convocation n'est-ce pas de, du corps électoral parce que le décret portant fixant la date de l'élection présidentielle est toujours là